mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen dalal ci pàkk bu sell bi ci bis bu sell bi ñu di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di yëkkati baatub asalaamu aleykum wa rahmatullah diko jele ci suñ jëm ju xébu ji waye diko jox seen jëm yu maggi ginaaw biñu bi ci nuyoo bobu khalifatul aam li taaifatil muridiyya a cheikh muhammadul muntaqa ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ba li mu naa la liggéeyal maamam cheikhul xadim yàlla may ko tal may ko fekke ba mu liggéey ko noonu it lañ koy ñaanalee cheikh mouhamadunil moustapha mi fi toog jotaayub cheikh mouhamadunil lamin baara lépp lu mu naal ci liggéeyal ko maamam moom it suñ boroom may ko tal ak fekke ba mu liggéey ko ci lañuy wàccee ci jotaay bi di nuyu kilifa yu màgg yu tedd yi nga xam ne ñoo toog ci suñu kanam di jéggalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati ci seen kanam waaye chaque jour rek dañuy faral di jëfandikoo bayit boobu sëñ bi di wax naan wala tafalu shay'an bi ghayri asn wala tafalu shay'an bi ghayri izn fal izn shartun fi habul sa'n defena lolu rek moñu ci duggal waye ñu ngi jéggelu bu baax kàddu yi jël ci seen kanam mu melni bis bi liko waral bisub sant la ak bisub fatlik ndax buñu xolé ci alquran ayat yu bari suñu borom tabaraka wa taala day digal ñu sant ko waaye buñ xoolee ci ahadisu nabawiya yi dañuy gis ne xadis yu bari it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day digle ñu sant sant googu it di ibaada goo xam dañ koo itlaax kenn tënk ko du ibaada goo xam ne la waaye mutlaax la nga xam ni jaam bi mooy ko neexee rek mu defee ko ko loolu firndeel nañ ci misaal bi nga xam ne dañ koy joxe rek ci seexul xaddim sant gi nga xam ne woote na ko ci 18 safar moom moo ko xayd ba jàpp ne noonu lañ ko war a defee kon jaamu la goo xam ne dañ ko itlaax léegi bu ko defee buñ xoolaatee ci xaddiis it fekk nañ ci sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ku dul sant suñu ku dul sant nit ñi doo sant sa boroom mu mel ni nit ñi nga xam ne it ñoom la yàlla jaarale ay xéewal ci ñoom dafa digale ñu sant leen xéewal gi gën a mag ci xéewal yi nag mooy ni'matul hidaaya gi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala moo moo ñu ko defal jaarale ko ci sëñ Tuubaa defe naa ni dañ cee war a sant bu baax a baax kon loolu moo waral bis bi ndax kum neex nga sant ci nit lu mu la defal lu la neex waaye ñun li ñuy sant mooy sant ci ni'matul hidaaya gi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala daf ko awale ci sëñ te ku wax sëñ Tuuba wax kan mooy sa bunt ci sëriñ Tuuba te alxuraan dafa waat ni waatul buyuuta min abwaabiha ñun suñu bunt mooy Cheikh Mouhamadul Lamine kon Cheikh Mouhamadul Lamine moom it suñu borom tabaaraka wa taala xéewal gim ñu jaarale ba mën a yegg ci mën a yegg ci sëriñ Tuuba ngir mën a yegg ci suñu borom loola lañ dajaloo tey jii di ko sant kon loolu moo waral bis bi sëñ Selefal organisé ko ngir di ci sant Cheikh Mouhamadul Lamine Baara bis bi nag comme ni mu commencé ñuy jàng ay xasiida ci suba gi it defe naa jàng nañ fi ay alxu ay kaamili alxuraan ci noonu it ci la wéyee ba ci ba ci guddi gi ñu jàng fi ay xasiida ba tey jii nii xam ngeen ni bernde yi bernde wu nañ ko waaye ñaar dafa am mooy jotaay yu mel nii de suñ ko organisé dinañ bàyyi xel côté ji côté bi nga xam ne mooy berne yi nga xam ne day jëm ci suñ biir waaye duñ mas a fàtte berne yi nga xam ne mooy berneel ruu yi te suñu waxee berneel ruu yi de mooy nit ki buñ ko wooyee ñu tegal ko ay waxtaan yoo xam ne wala ñu wooyal ko ay waxtaankat yoo xam ne dinañ mën a suyee benn rôle ci ruwaam ba buy ñibbi lim am ci ay berne ci biiram waaye du tee ruwaam it dina fees dell ak i leer ci waxtaan yooyu nga xam ne dina ko fi dégge loolu moo waral ba Baye Sélé bi mu xalaatee loolu dafa tànn koo xam ni defe naa buñ ko joxee thème boobu ni ko waxtaan ci dina yomb ci moom lool muy sëriñ Abdul Xadim Mbàkke ibnu sëriñ Xadim Mudu Baara ñu war a waxtaanee lenn ci xayaat ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nga xam ne loolu defe naa woo naar ci guuxum soow lay doon rek waaye du doon dara buñ paree it dinañ fi dinañ ci dolli ay kàddu yoo xam ne dinañ ko ci sànni ku ci mel ni sëriñ xaadim Mbàkke moom sëriñ Mustaahin dina fi yëkkati ay kàddu bu paree waa kër sëriñ xaadim Diop wala délégation bi nga xam ne ñoom lañ àndal kenn dina ci yëkkati ay kàddu bu paree ñu jox sëriñ Abdul Karim Mbàkke mi nga xam ne kenn la ci ñi ñu darajal bés bi mu yëkkati ay kàddu bu paree ñu jox sëriñ Muudu Busa mu tëj li nga xam ne mooy cérémonie bi xam naa kon ngir njëkkante ak waxtu wi rek dañuy woo sëriñ Abdul Xadim Mbàkke mi nga xam ne moom moo ñu war a defal waxtaan wi ci xayaatu seex Muhammadul Lamin ci lenn ci dunduk seex Muhammadul Lamin ndax bu fekkee ni bés bi dañ koy waajale Mbàkke Kajoor te Mbàkke Kajoor kañ fay fàttaliku mooy seex Muhammadul Lamin mën naa am bu ñu yeggee duñ ko tal walla ñi ngi ci yeneen léegi bis bi suñ ko préparé andi ci koo xam ne dina jàngat lenn ci dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine bu ni dem Mbàkke Kajoor dinañ xam ka ñuy màggalil mooy kan kon ku bëgg a xam ki nga xam ne moom la ñuy màggalal Mbàkke Kajoor la 4 janvier bii di ñëw euh, wala la 4 février bii di ñëw nañ teewlu bu baax Serigne Abdoul Khadim mu wax ñu kenn mooy Cheikh Mouhamadou Lamine wala mu jukkil ñu ci lenn ci dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine. aouzu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 الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء سدد لساني نوّر جناني صف أماني وزد برائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جولي دي مبكي taalibe yi dongay Sëñ Tuuba ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci ab yonentam muhammad rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ñaanal cheikh muhammadul muntaxa suñ borom yokk aw fanam yokk ak wéram itam ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ Touba mu matale ko te ànd kook dong yëpp te lum jëf rek sëriñ Touba nangul ñu ko di ziar yi ak ñaanal sëriñ mustapha mam Cheikh Sidil Mokhtar yàlla motli yéenam ci keur Cheikh Mouhamadul lamine te defal ko ak wér ak mbollem talibé Cheikh Mouhamadul Amin yëpp di sant yàlla bu baax ci fekke jotaay bi ànd ak yéen liggey bu reuy bi waye di tambalé cyant gi ci xewal gim ñu defal té makoy wax bis bu set muy def gim ñu def ay doomu adama te manon ñoo def leneen waye mu def ñu ñu bok ci li gëna tedd ci wala xadd karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa fadalnaahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila fofu ay pexe mënu fa bolé kenn coobare yàlla rek ak ndimbalam moo fay boole ku ko sob te ginnaaw yàlla boole nañu foofu war nañ ci sant bu baax a baax waaye cant gu ñuy sant yàlla rek dañ koy jaarale ci ab yonentam mi nga xam ni jëf yépp mi ngi koy nangoo ci jaarale ko ci ab yonentam nga xam ni lu waay jëf nu mën a toll rek boko ko jaarale wut ci yaronte bi alayhi salaatu wasalaam yalla du ci am soxla comme nima kay waxe rek aduna bepp amel nañ ko ak sante mom yaronte bi alayhi salaatu wasalaam julit ñek ñu dul julit buñu xolé xam nañ ni suñu borom ci bu njëkkoon bu nit ñi defaan aw toñangé wu reuy wo xamni ni dayo da leen di alak alkande joo xam ni du yam sax ci ña ko def masalan xawma luutin muy nit di luut ñi ñaar ci ñoom bi ñu jaxasoo def aw ñawteefu rëy muy ñaari góor yu sëy ci seen biir suñ borom da leen a mere ba alak xeet wépp wëlbati suuf sa la féete woon kaw féete suuf la féete woon suuf féete kaw ndax mere leen waaye ci barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dani dootu alak aw xeet lu tooñ gi rëy rëy rëy dootu alak aw xeet ngir barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ko tooñ day nekk ba ëllëg mu lijjanti kook yow waaye dootu alak aw xeet te ku ne xam na ni loola ma nga ca ndax niti loot ñooñu la ñu defoon ku ne xam na ni àdduna yàq na ba àgg ci di ko déggaat ba ci suñu réew yi ñu nekk sax ñu ngi ko fiy dégg te teewul yàlla di ci maandu mel ne da koo naqariwut na mu ko naqarewoon bu njëkk waaye fekk na ah kay waaye la mu waxoon rek barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax alagatul xeet yi mu di leen nige ëllëg loolu nag jullit ñeeg ñu jullit ñëpp amel nañ ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam cant loolu nag fonk gu yàlla fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax fonk goo xam ni ëpp na xeli nit ñi ak ci fonk ko ba dugal ko ci biiram daanaka dafa jël jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugal ko ci biiram moom yàlla suñ borom ba fu mu tudde aw turam tudd turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëf yu baax yépp li ma wax sànq mu at ko ci nga jaarale ko yonent ci yonent bi mu dog ko nangu ba ci topp gi ñu ko war a topp dangay gis ne day digle ñu topp ko ak moom yàlla ak ab yonentam atixullaha wa atixu rasul julli mi gën a rëy ci lislaam dangay gis ni fu ñu ciy duggee fu ñu tuddee yàlla ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah lañ ciy teg ñim digle ñu topp ko jaarale ko ci yonent bi bët yi ñu koy mooy sax da ngay gis ni day wax wa may yaxsillaaha wa rasulahu lay wax ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla ak ab yonentam yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi lay wax fu mu ko tuddee tudd tudd tudd yonent bi teg ci wetam ba ci ñu ko déclaré guerre fasano bi xarbin min allahi wa rasulihi ba ci muhaahada bi nga xam ne yëfar yi bi moom lañ signé woon ak yonente bi bi ci yàlla jógee dana baraatu min allahi wa rasulihi ila lazina aatu min al mushrikina wa man yaxruj min baytihi muhaajirin ila allahi wa rasulihi ñi gàddaay ànd ak yàlla ak ab yonentam يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون yéen ñi gëm moom nit ñi wuy bi muy wax foofu ñi wuy ji woote yàlla ak yonentam istajibu lillahi wali rasuli isa daakum la wax waxu daawaakum ñaari woote daakum benn woote la nga xam ne xamoo yàlla ak yonent bi kan moo ci woote kon ne ak ci ñëpp inna allazina yubayiunaka innama yubayiuna allaha ñi jaayante ak yow da ko ne yàlla la ñu jaayanteel waxut daanaka waxut ka annama bu ne woon ka annama innama adaatu asrin la ñoom sëñ sang si borom xam-xam yi xam nañ li may wax innama bokkut ak ka annama nga xam da ko ni yàlla ci boppam lañ jaayanteel nga xam ne li ma wax ni dafa duggal yonent bi ci biir jëmmam allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduhu hugooku damir ji xamoo ci allahu la dem xamoo ci rasulu la dellu xamoo kan moo ko ci ñoom moom ñoom ñaar ngir fonk ko yàlla fonk juróom ñaar fukki yonent yi ak juróom yi nekk ci alxuraan da ngay gis ni bu leen suñu borom woo da leen di sàllawlu yaa ibrahimu qad saddaxta ru'ya yaa daawuda inaa jacalnaaka xalifatan yaa muusa ini stafaytuk yaa aysa ini mutawafik yaa zakariya inaa nubashir da di sallawlu yaa diw la waaye yaa muhammad doo dégg mu wax ko danaan yaa ayuhal nabi yaa ayuhal musammin yaa ayuhal mudassir ngir fonk bu ko fonk adduna bépp war nañu tànt di ko sant ba ci fonkeel googu dangay gis ne bi ko yëfar yi di foyee benn bis kenn ci yëfar yi dafa toog ak moom am mbëtt mbëtt yi daw ci àll bi romb leen mu ne Muhammad bu fekkee ne yàlla waxalal mbëtt mi ma dégg fi saasi yónent bi daal ni ko yaa dabb man ana yow mbëtt mi man a kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamina wa xaatamu nabiina xad aflaha man saddaqat wa xad xaaba man kazabat ne ko yow la yàlla yónni ci mbindeef yëpp xam naa ne daal texe ñeel na ki la dëggal waaye tuskare ñeel na ki la weddi mbëtt di wax loolu ngir dëggal barke bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ay jamono am na sàmm boo xam ne dafa nekk ci àll bi di sàmm ba mujj yàgg ak till jàpp di dàq ci gàtt yi benn gàtt ba jàpp ko waa ji di daq tilli gi di ko dàq ngir bëgg nag bi mu demee ba koy bëgg a jot tilli gi daal di wàcc gàtt bi mu jàppoon waaye waa ji moom bàyyiwu tilli gi daa topp tilli gi di ko dàq rek bi mu demee ba bëgg koo jot tilli gi daal di wëlbatiku jàkkaarloog moom lem geen bi toog ci ne ko waaw yow ndax wërsëg bi ma yàlla wërsëgalee ma dem ba di ko bëgg a jàpp dangaa taxaw ngir xañ ma ko mu ne ko subhanallah till buy wax mu ne ko ndax dalaa yéem mu ne ko wax dëgg yàlla yéem na ma mu ne ko loolu de am na ko gën a yéeme mu ne ko lu mu doon mu ngi fii ci dëkk bii nga génne nekk ci penc ma tudd Muhammad wax ni yàlla ko yónni indi tegtali dëgg yëpp ngeen weddi ko moo gën a yéeme sama wax ji ma wax mu ne ko anamu mu ne ko mu ma nga ca penc ma di woote demal nga fekk ko fa bi mu demee nettali loolu yonent bi moom sàmm bi waaye bi muy dem mi ngi ni till gi man de sama jur gi may sàmm moo ma jaaxal till gi ne ko dénk ma ko ba ñëw mu daal ku koy dénk dem bi mu demee natt li loolu yonent bi yonent bi woo Bilal ne ko mu woote salaatul jamaa a nodd ngir nit ñi ñëw bi ñu ñëwee mu ne sàmm bi nettaliwaatal li ngay nettali woon sàmm bi nett nettaliwaat loolu waaye ne ko nag sama jur ga dee nga cay loxo ma dénk ko waaye ci mu tiit képp laa ko defee yonent bi ne ko da nga fekk mu di leen sàmm dara du di sikk bi mu demee fekk tilli gi doon jàpp gàtt yi di leen fàdd moo wëlbati ko di sàmm gàtt yi di waa ji ñëw rayal ko ab gàtt neexale ko ko ngir barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku kenn xamut lu doon la day wax saxaaba yi neen ahsinu salaatakum fa inni arakum min xalfi kama arakum amami bu ngeen di julli day leen rafetal sàpp yi ndax man ni may gise léegi sama kanam noonu laay gisee léegi sama ginnaaw kooku kenn xamut lu mu doon waaye loolu ma wax ni lépp yàlla defal na ko ko bis nekk na di julli di sujjóot sujjóot ba yàgg ci sujjóot bi ba soxna sayyidatuna Aïcha yaakaar i dafa loru mu ne ko waaw yow lii ngay daj xanaa du yow la suñ borom wax inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaghfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siraatan mustaqiiman mu ne ko axa kay waaye nag loolu bu ma ko defalee afalaa akuuna abdan shakuuran war waruma ko sant ci loolu yonente bi yàlla defal ko loolu lépp mu am ngor bu toll di sant yàlla di rot ci ay ru ak ay rukkoo ba ñu yaakaar ne dafa loru te may wax ni moom lu ko yàlla defal mu defal ko sëñ Tuubaa lu mu defal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa defal ñu lu ñu toll sëñ Tuubaa moom it delloo ak cantam yonente bi li mawlaaya xamdi wa huwa anni mahal kabla wa li xaada faydan axjala al bahra wal wabla ne ko lakka shukuuri hinda duyuuri yasal xusuuri bila jala lakka ñeel na la moom yonent bi shukuur yi samay cant hinda yi fa samay kër te fii kër la ci kër sëñ Tuubaa kon yow mi woote lii yaa ngi jàppale sëñ Tuubaa ci cantuk yonent boobu alayhi salaatu wasalaam te sëñ Abdul Ahad dafa wax ni bu ñu la defalee loo xam ne ku am bët gis ko danga koy wax ba ku am nopp dégg ci xéwal gu yàlla defal yonent bi yonent bi defal ko sëñ tubaa sëñ tubaa defal nañu ko waaye nag fan li sëñ bii doon wax léegi xéwal googu nu mu mën a toll kenn ku ci nekk day am buntu booy jaare ngir am ci xéwal googu ñii Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy seen buntu ci sëñ tubaa ñii Cheikh Mouhamadul Fadal mooy seen buntu ci sëñ tubaa ñii Cheikh Mouhamadul Amin ni ki ñun xataa Cheikh Mouhamadul Mourtada kenn ku ci nekk ak sa buntu ci xéwal googu kon war nañoo sant ci xéewal googu waaye jaarale ko ci bunt bi tax ñu jot ci xéewal googu muy Cheikh Mouhamadul Amin te xéewal googu gi ci gën a réy ci àdduna yàlla jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu teg ko ci loxol sëñ Tuubaa ngir lii ma wax léegi ne yàlla defal na ko yonent bi lépp teewul yonent bi xamle na ni ñii gën ci xeet wi wala ñi nga xam ne ñoo di ay mbokkam axiru zaman la ñu ñëw ëllëg muy jamono ji ñu nekk ñun te ba mu ko waxee Seydina Omar wax ja jaaxal ko da ko ne kon ndax ñun dañoo doonul say mbokk da ko ne antum tajiduna alal xaqi awaanan wahum laa yajiduna yéen samay saxaaba ngeen ngeen ànd ak man ma di leen dimbali ci dëgg waaye ñoom dañuy ñëw ëllëg te kenn du leen dimbali dañuy wéet ca lañ nga gis ci koo xam ne mën naa sonn joxe alalam joxe ab deram joxe deretam joxe ay mbokam lépp ngir sama jëm ak jëm yàlla te koko kenn la ca ñom te amul kenn ku joxe tegtal yooyu tudd Cheikh ahmed Bamba khadim Rasul dafa wax ni wasilati wa matlabi wa munyati wa junnati wa jannati wa bukhyati sayyiduna muhammad afdalu man mada wa man yati wa man fiisa zaman moy sama wasila moy sama càkkuteef moy sama aljana yonent bi moy aljana seigne touba ñun seigne touba du sun aljana kon yonent bi suñu aljana نكو لك يا نبي منازلي ومواطني ومواضحي لك بالحليم متحودا على لم اكيينم اك لغيام با تي ريو ميم دك دكو جوخ يونس تبارك الله والسلام اديا تي لي ماي واخ سين توبا لوم واخ بيندكو نمكو جيفه مو كاو بو بروم خام خام يدي واخني ابو بكر مو گن تي جوليت ني گناو يونس تبي تي سين فاس فاس نيوم داني خول ñaar yi gëna reey ci ay jëfam ñu gis ni señ touba dag na ma ko ak ngir yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam keroog bi yonent bi di gàddaay ànd ak Aboubacar ñu dugg ci xunt ma Aboubacar dafa xool pax mi xunt mi pax yu ndaw yi ci nekk mu summi mbubbam dagg ko ay morsa fu ci nekk mu roof fa dara ngir bañ dara di ci génne di lor yonent bi bi mu roofee ba mu jeex mu daal di dugg woo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw yonent bi daal di ngeganu ci pooju Seydina Aboubacar tàmbali di nelaw ndax guddi gi jiitu guddi googu daa nelawutoon bi mu tàmbalee nelaw Aboubacar xool fi mu jàkkaar loolu gis ni am na pax moo xam ne sakku ko da koo fàtte mu daal di jël tànk bi teg ci ngir bañ dara di ci génne di lor yonent bi fekk ne pax mi jaana ci nekk naka jaan ji génn rek matt ko benn matt waaye Aboubacar ñi mu wut a yëngu ngir yonent bi di yow jaan ji matt ko mattu ñaareel mu ne degg rek ba ci ñetteel bi nag mett du yéeg ba ci bopp bi attanatu ko mu jooy rankooñ bi toq ci lex yonent bi yonent lii lu mu doon mu ne ko bi may sakk wax yi daa mel ni daa am gu ma fàttee teg ci sama tànk waaye dafa mel ni jaana ci nekk ci la ko yonente bi tefli dangal ci daal di wàcc tànk bi mel na meloon ñu xool Cheikh Ahmadou Bamba juróom-ñaari at yi mu def ci liggéeyal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu daj lu raw mat mat matub jaan ñu lay nettali la mu daj ci Gabon dootoo bëgg a nekk ci àdduna te amul benn yoon buñ déggee ak rankoñam génn wala mu ne oh wala dara di ko metti ngir bëgg yonente bi ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala kon yonent bi mënut a jox Aboubacar lu mu joxut Sëñ Tuubaa keroog bi yonent bi ñëwee ne dem na baytul muqaddas ñëw abu Aboubacar ginnaaw moo gënoon a jege yonent bi yéefar yi dañoo dem na ko yow nag sa waa ji eh, waxati na lu kenn xamul nee na fee nga xam ne ñun weer lañ koy dox nee na dem na fi dikk ci guddi ñëwaat dani leen bu leen ko waxal lu mu waxut nga xam ne gëmu ko fi sas bi mu demee lakk ko ko ne ko ndax yaa wax lii ñu wax mu ne ko ah kay yo aboubacar ne ko ah man de dem naa baytul muxaddas leeral ma nu mu demee yonent bi di ko ko misaal jibril indil ko baytul muxaddas ba mu ak moom mu di ko ko leeral benn par benn mu ne ah wax dëgg yàlla de lii nga wax noonu la mel ndax man dem naa fa ñoom ñëpp ñu nangu nga xam ni yonent bi da koo indil ay preuve mu doog a d'accord ginnaaw bi sax mu ne ah, waaw man sax de koo xam ne mu ngi may wax xibaar yu jógee asamaan ma di ko gëm bu nee maa dem na ko gëm te Cheikh Ahmadou Ba moom sural amini mahal amini fawqal amini lii la siyay la wax amu ci sikki sakk kon yonent bi du ko dencal moom Aboubacar lu mu dencalut Cheikh Ahmadou Bamba ba ci ñi gën waxuma ñi gën ci jullit ñi de wala ñi gën ci eh, kumalu awliyaa yi waaye yonent yi laa wax ñi ci gën muy ulul xasmi juróom muy abu eh, noox Moussa Isa ak Ibrahima yàlla joxu leen lu mu xañ Sëñ Tuubaa li may wax nooxim bi muy woote junniy at te lim bi mu bëgg ñu wuyu si ko wuyu si wuñ ko ba mu demee ba amatul pexe ci ñoom ba ko yàlla laajee lu mu bëgg ci aw xeetam daf dafa ne ko alag leen amuñ njariñ ci kaw suuf si rabbi laa tasar ala al ardi min al kafirina dayyaaran innaka in tasarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran ba ko xaaruuna lakkalee yàlla ne ko loo ci bëgg da ko ni suuf si wann ko suuf si di wann xaaruuna xaaruuna di yuuxu di ko tinu Moussa naan suuf si wannal xaaruuna te Cheikh ahmed Bamba bi mu jakkal ak non yàlla yi ak non yonenti bi ba lim bëgg ci liggéey yonenti bi mu mu def ci lu kenn mës def ci aduna li ci dess ci ay non bi ko yàlla laaje lu mu ci bëgg ñëpp def xafawtu anil a'da yi turan li wàcc man nafahum li khayri sarmadan lastu adfaaw xafawtu yi wàcc illaahi maxsafi kalkali wa xultu li irdain muxafan mu amali kon yàlla mënut a jox noox lu mu dencalu sëñ Tuubaa mënut a jox Xiisa wala Muusa lu mu dencalul Sëñ Tuba yonent yàlla Suleymaan li gën a rëy ci ay mayam mooy li muy wax ne olim naa mantiqa tayr yàlla déggloo na ko picc yi ak yépp bu ñuy sax ñanaaw yi dafa xam li ñuy wax bis day dox ba mu jàgg mu dégg wenn xorondo mu naan yaa ayyuhan namlu udxulu masakinakum la yaatimannakum Suleymaan wa junuduhu wa hum la yashuruna ne yéen xorandoom yi dugg leen ci seen biir kër yi ndax Souleymane ngi ñëw ak gàngooram amaana ñu dëggaat leen dëgga leen te duñ ko yëg Souleymane dégg loolu ci noppam ree fa tabassama daahika min qawliha Cheikh Ahmadou Bamba ci ak mu jëm jël la fa Souleymane àggoon waaye loolu da koy rafatale ay taalibeem Serigne Darou Hassan Ndiaye Serigne Touba waxoon na ko ne bala ngaa faatu li picc yi di sax da koy xam nee na bis mu toog di japp ngir julli takusan deg ñaari pitax ci ak garab mel pitax mi ne morom ju funis fanan mu ne ko ci garab gay ñuy jang alquran neena ci la xamee ne ngi bëgg waccu kon koku du morom sulayman ba ci micro yi ñuy yor wala bant yi kenn ku nekk day wax soxlam ci Cheikh Ahmadou bam dañuy wax ni li tax Cheikh Serigne aissa jenn am ci mom cër bo xamni cër bu reey la moom day def bu duwelee sëñ bi satala bu may jàpp bu ko segee ci wetu sakket bi sax danaan sakket bi bu fi ku baax ki jaaree nee ko bu ma fàtte lu mu romb ci kër gi rek garab yeeg sakket yeeg bant yi lu mu romb rek wax loolu bis sëñ bi ne man de damay def lu ma romb rek maa ma bul fàtte Isa ak waa këram te alxuraan dani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum lépp dañuy sabal yàlla suñu borom ñun ñoo ko mën a dégg kay waaye lépp moom day sabal suñu borom xewal yoyu nak sëñ Touba suñ borom defal ko ko ci barke bi yonent bi te ñun ñu jot ci ngir Cheikh ngir jëmmi Cheikh mohammed Lamine mi nga xamni seen mo ci suñ bur war nañ buñ goré nak tok tant waxtani Cheikh mohammed Lamine waxtani Cheikh ahmed Bamba béral suñu cant ba àdduna bépp dégg ngir xewal gi ñu duggal te coobareem kep duggal ñu ci alquran dani wa in min cheyin ila indana xasainuhu wa ma nunaziluhu illa bi xadrin maalumin Cheikh Ahmadou Bamba ne xasainu rabbi futtihat lii wa saxsaxat li gayri al aza wa oxra wa barzaqu xéwal googu Cheikh Mouhamadou Lamine moo tax ñun ñu mën a tàbbi ci googu xew li gën a rëy ci àdduna muy sakkarab laa ilaha illallah mooy li ëpp doole ci àdduna fu nekk mën nañ ko faa sikki sakka ba mu des ñi nga xam ne wóor nañu lu sëñ Tuubaa teg na ko ci suñu loxo ndax ila tawaali fi yaquudullahu asrara laa ilaha illallahu buñu ñu ci secret bobu diko téy ci suñu loxo mu wóor ñu ni ñi ci ciy barkeelu ci barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy sante yàlla ak yonente bi ak seigne Touba ak Cheikh mohammed Lamine mi ñu boole ci xéwal bobu kon war nañu tànt diko sante li xayrin intaha bil muntaha kullu dhi shaqa wa yanhu bihi nahwi sahid wa sutqa ku ànd ak seigne Touba mom amo sik sak ni ñay taxé di moom bokkoo te yow te ñun Cheikh mohammed Lamine moo ñu ci boole lii ma wax lépp day ay xéewal yoo xam ne yàlla du ko defal sëñ Tuuba te am ci ñenn ñu ko xamut te xéewal yi mu ko dencal ëllëg yowmal xiyaamatil akbar gën koo rëy ndax wala laaxiratu wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru taf wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan bu ñu nee sëñ Tuuba gën ci lu yàlla bind ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ay téere képp lañ jàng ñoom duñ ko mën a dégg fekk na mbiri yàlla moo moo moo lëj ci wolof wax naa ne al asharatul mubasharina bil janna fukki nit ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni seen àjjana leer na ma muy abou bakar omar ousman ali talaa zubayr saad ibn abi waqas abdourahman ibnu awf fukk lañ yonent bi ne ñii seen àjjana leer na ma te yonent bi wax ni fukk yi seen àjjana leer na ma moo toog bis am soxna soo xam ni doomam jodow dafa faatu ñu di ko suul mu ne ah moom sax da xam naa ni wala xa njaanu àjjana la bi nga ko waxee yonent bi da ko ni bërët ne ko ku la ko wax man mii da la yàlla yónni ci jaam ñu naan Isa ibnu Maryam te xaw ma fan la ma jëme ëllëg yónent bi ne fukk ñuy seen àjjana leer na ma moo ne xale bii xaw ma mu jëm nañu borom xam-xam yi leeral loolu mooy ca gaalam nga ak Moussa keroog ba bi wax yow mu zina mooy bantam boobu nga xam ne da doon def jaan nga xam ne moo jommaloon Firxaw na Firxaw na wut ay njabarkatam ñu doon wax ni juróom-ñaar fukk lañ mu juraat ci juróom-ñaar fukk yooyu yeneen juróom-ñaar ngir ñu jàkkaarloog Moussa ci njabar ñu jàpp yow mu na muy bis bi nga xam ne ñoom dañ ci daan daje keroog bi ñu dajee ñoom ñu sànni seen seeni bant mu doon ay jaan yu baree baree bare ba Moussa sax tiit na moom ci boppam waaye suñ boroom dalal ko xamal ko ni dëgg rek kay mujj te it yaay am ndam bi mu sànnee aw yatam moom Moussa jaan ji doon jaan joo xam ne mosuñoo gis lu tol noonu yor ay tànk lekk jaan yi nga xam ne fii ne njabarkat yi ñoom la ñu yoroon ñoom ci seen bopp xam nañ ni lii Moussa def du ak njabar waaye ñoom xam nañ ñu def ak njabar la fi saa si dañoo daal di tub ne amanna bi rabbil alamina rabbi Moussa wa Haruna gëm nañ la mi yónni Moussa ak Haruna nga xam ne Firawna dafa mer ne leen da ngeen di gëm ci lu njëkk ma di leen ko digal la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaafin summa la usallibannakum ajmaina dinaa leen rey sërëb leen ci ay dàtti tàndarma nga xam ni dañoo ne biñ paree ñoom njabarkat yooyu dañoo ñaan yàlla ne ko nag ñu may ñu mën a dékku mbëgaloon firawna nga xam ne firawna da leen a rey daggati leen sërëb leen ci ay dàtti tàndarma muy ki njëkk a def li gën a ñaaw ci àdduna nga xam ni bi ñuy ñëw ay yéefar lañ doon yu doon njabar di jàkkaarloo ak yonent bi yàlla ci ngoon bi ñu doon ay suhadaaw nga gis mbir yàlla li mu lëje li may wax hind jabari Abu Sufyan keroog bi rey Seydina Hamza mu dagg nopp yi di ko takk ay jaaro di yëy xol bi di ko burusu ngir bañ ko far lim bi mu yëy xol bi am ci dara loo xam ne jàll na ci biir bi yàlla ni du rey mukk maam du alak du lakk euh, hind di lakkaale dara ci Seydina Hamza gi nekk ci biiram nga xam ne loolu moo sabab ak tuubam mu bokk ci euh, saxaaba yi nga xam ni nga xool lii ko taxoon a jóg ab saxaaba nga rey ko xar ab dënnam génne ab xolam di ko yëy dagg ay noppam ndekete loolu moo lay musal yàlla kenn xamul ay mbiram fu mu ko dugal kon buñ sikki sàkk ni sëñ Tuubaa moo gën ci lu yàlla bind gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam li may wax bërki démb ci benn ñii tudde seen bopp ay borom xam ay waxaa bis la xaw ma xeeti seen xeeti tur yooyu ñuy dàq gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax nee nañ kenn mënatu koo gis ginnaaw bu ñu faatoo ñoom sax baat boobu lañuy jëfandikoo faatoo nga xam ne ñoom xamuñu ko kon may wax ni segam tubaab yu bon yi tubaab yu bon yi ñoo mën a toog fi ñu toog ñun ñu toog fii ñu ñuy wan ka nekk Australie wala ka nekk Amérique bu waxee ñu dégg ko bu wëlbati ko ñu gis ko te ñu nekk Touba di jaamu yàlla yàlla mënuñoo wan yonente bi kon ñoom yàlla ci boppam lañ xamul kon bu sëñ Touba ne li des ci àdduna ak mbindeef yépp yàlla may na ko ko teg ci loxoom te ñun suñu wàll di cheikh Mouhamadul Amin war nañoo tànt sant cheikh Mouhamadul Amin ci xéewal googu mu ñu boole ndax li li sëñ bi wax léegi ku santul yàlla ku santul nit mënoo sant yàlla te xéewal gu nekk ak fi ko yàlla di jaarale te it waxtu wu amee da nga koo war a wa amma bi nixmati rabbika fa haddis xéewal moom fu mu amee rek dañ ko war di waxtaane li may wax waxtu wu nekk itam doomi sëñ Touba yëpp ñoo yam daraja tolloo ko ci doon doomi sëriñ Touba waaye nag bi ñu paree kenn ku ci nekk da am li ñuy wax xusuusee taxsis goo xam ni sa jagleeg boppam ñu am ci goo xam ni du ñu ne mukk suñ bunt dafa yées bokk na ci li li jàngkat yi di wax ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba moom Cheikh Mouhamadou Lamine moo ëpp lu mu bind ci sëriñ ci xasida ci tagg yonent bi ak tagg sëriñ Tuubaa ci boppam ginnaaw sëriñ Tuubaa moo ëpp lu mu ci bind waaye li may wax mbind moomu lu muy bari gi du solo si waaye barket mbind mi ak dugal gi ñu dugal ci biir ñun ay waa këram loola moo am solo li mu wax ci Munawwirul Bunyaan nga xam ni du ñaan yàlla mottalil ko yéeneem ci biir ci jumaa ji nga xam ni tuddut yéene jooju kenn xamul jan yéene la te ñu gis li ci Cheikh Sidil Mokhtar liggéey nga xam ne amaana mu doon yéene jooja te wóor ñu ni kon loolee sëñ tu Cheikh Mouhamadou Lamine ñaanoon sëñ Touba sëñ Touba may ko ko barkeb ñaan googee ñun ña nga ca biir te dugaluñ ca suñ bopp Cheikh Mouhamadou Lamine moo ñu ca dugal ba ci lettre bii ngeen di gis waxtu wu nekk ñu di ko jàng damay wax ni mbir dana dana dem ba lambu ni ko wala fii waxee lu am dayo la luñ war di bàyyi xel fi ne julli gi ñu julli waxtu nek bis bu set ñu diko ñu diko baamu di julli ge bu suba ñu wat ko julli tisba suba ñu wat ko te fekk julli gu ci doon bu beesee dafa war mal ni mosoo julli ci aduna lima bëgg wax moy lu ñu koy dégg lettre bobu ci suñu nopp lu muy reey reey lu muy bari bari wala ñu ko gis ci suñu bëtt lu bari bari bu mu tax ñu fàtte dayo bi ndax ci yàlla ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ gisee ay wax wàcc jóge ci yàlla jibril indi ko jox ko yonent bi waaye ginnaaw yonent bi sëñ Touba ci Cheikh Mouhamadou Lamine lañ ko gisee muy lettre boobu mu wax ni sëñ Touba moo ko ko jox bi mu wax bi mu ko waxee ne ko ñi ànd ak yow faalam bi annaka ya Muhammadul Amin satanaalu maqaaman yarabituka fiihi jamia amsalika wa wa anna kulla man kaana mahaka damaa xamatul nu mu tëddee waaye eh, ci wolof mu gàtt da ko ni am nga maqaama moo xam ni kurut yow dana la ñëw ci maqaama moom te képp ko ànd ak yow dina ak aljana bi xëy xisaab yi waaye li ci li ci gën a yee mooy wala taskuk fii kaw ni hasa min allahi wa rasulihi bul sikki sàkk ci ne li ci yàlla la jógee jaar ci ab yonentam jaar ci man ma jox la ko loolu ginnaaw Cheikh Mouhamadou Lamine xamuñu ku yàlla yónni ci moom ab leeta loolu nag du suñu jëf ba tax yàlla ni wax Sëñ Tuubaa mu wax Cheikh Mouhamadou Lamine ne ko sa ñoñ موتينين تدانين تابع الجنة بخير حسابين جفوني لطخ يلا دوني دوغل الجنة بخير حسابين طيب بارك بشيخ محمد لمن موتا مني في دوغل بخير حسابين كون بوفك كيني بارك يا متاخ تجفولين كل لطخ بندي أجر ورنا نوتان تجوسان تي سنت جوجو صح دين ملني موتا يلا بيني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمعا ولا بصارا ولا فئدة لعلكم تشكرونا ok jërëjëf lettre ba sax moom la ma sëñ bii far yónnee dafa wax ni ko faalam bi annaka ya muhammadul amin satanaalu maqaaman yaxbituka fiihi jamiu amsalika wa ann kulla man kaana maaka jamian la yarawna illa ma yasruhum wa yanfahum fi dunia wal axira ok jërëjëf sëñ bi ci fàttali gi léeg-léeg yi teew ci sama bopp mooy bari ba du ma mën a jàpp lépp nga xam ni ñun defaluñ Cheikh Mouhamadou Lamine liggéeyaluñ ko lu tax barkeem ñu ciy dugg aljanna bi xëyri xisabin kon bu fekkee ni li ñu man mooy toog berndeelante toog waxtaane ko toog jàng alxuraan jàng xas ay xasiidaay sëñ Tuubaa jàng xasiidaay Cheikh Mouhamadou Lamine sante ko Cheikh Mouhamadou Lamine muy suñ bëntu sëñ Tuubaa loolu mooy li gën a tuuti ci liñ war a mën ndax li ma wax daanaka cant tax suñ borom binduñu dafa ni maa leen génne ci seen biiri ndey te booba xamu leen dara ma defal leen ay nopp yu ngeen di dégge defal leen ay xol yu ngeen di taatane xam-xam defal leen ay bët ndax lan la alakum tashkuruna ngir ngeen may sant rek waaye sant googu ñu war a sant yàlla ba tax li tax mu defal ñu loolu bañ war koo sant ñun Cheikh Mouhamadou Lamine tax ñu jot mi nga xam ne moo yées ci àdduna bi muy waxanteeg yàlla foofu foofu la ko wax ni fi laay xaar nit ñi فبما اغويتني لاقهدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين داكو ني генي غاما سي سير ماندي واي نيت ني يونو جوب بيغي لين ردل دينا لين جيل نداي جور جوغي لين تامون نيك لين سين كرام نيك لين سي سين غناو دينا فخي بني اوب سي نيت ني دون لا سانت كون نون بون توغي محمد لامين ген نين ابليس جوجا في موم ابليس امو tey it suñu borom dëggal na ni sax iblis am na loolee ndax wa jaala lakum samha wala absaara wala idata xalilan ma tashkuruna ñu néew ñooy sant waaye ñu néew ñoo ñeew lu mu néew ñun bokk ñu te ndax ñu ngi sant yàlla ak Cheikh Mahamadul Amin bu sëñ Tuubaa di sant yàlla ak yonentam ci xéewal gum kat kafaytani xayhaba maa ta jax-jaxa min al fa shakartu ba jaxa te moom nee naa daa def ngir yàlla ak yonent bi daa sonn te ñun defaluñ dara yàlla ak yonent bi ak Cheikh Mouhamadou Lamine dara lañ leen defal te na nañoo wat ni suñ ëllëg leer nañu li sëñ Abdoul Ahad di wax ni suñ gannaaw faatu amuñu luñ ci mën a dërloo te suñ baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa jooju Cheikh Mouhamadou Lamine leen ci jotale kon bu ñu amee ngor war nañu tànt waxtu wu nekk di dajaloo di ko sant ba ñëpp gis ko ñëpp dégg ko daa bokk ci barket nitu yàlla doomi sëñ Tuubaa yi jël leen weesu nañ ay nit yàlla seen ruux am doole doole gu toll ni fu ñu leen di waxtaanee ñu dem fa bu Cheikh Ahmadou Bamba di wax ni allamani ma kaana xablal xalqi man kaana lii bi karamin wa tilqi ruux ga moo tax muy wax te ruux booba ca alastu bi rabbikum ja ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànnee aw ñoñam aw xeetam ak ay saxaabaam ñi koy topp sax ci la sëñ Tuubaa tànnee waale moom itam aw ñoñam ñi koy topp ba muy tànn tànnaale ñu ñun maanaam nañoo tànn ku ne doon suñ bunt ci moom fu nekk xeewul bi dafa jaar waaye bu ñu tànnalee bu ñu tànnalee Cheikh Mouhamadul Amine muy suñ bunt ci sëñ Tuubaa am na lu am na lu mu ca xam luñ ci xamut ñun mbakk kajoor géej ab dëkkam nga xam ni ca lañ war a jëm adduna li muy rëy li may wax yonent bi mooy li fi gën ëpp fi doole waaye ginnaaw yonent bi sëñ Tuubaa fi gën ngëneelu sëñ Tuubaa googu ak yoonu murit li muy rëy rëy rëy mbakk kajoor jogee moo ko waral fële lépp sosal te mooy cërub Cheikh Mouhamadou Lamine bi gën a boo booroon lim boo nee wëlbat rek bi nga mën a njëkk teg sa baaram a jàll du ma ni mooy bi gën a rëy du ma ni mooy waaye dama ni bi nga njëkk kon yoonu murit mooy cërëb Cheikh Mouhamadou Lamine kon man ngeen ni waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine ñooy yoonu murit kon yéen nu neex waaye na mel donte sañu ko waaye yéen daa am nu ngeen war a mel te ni ngeen war a mel mooy doon ay tànneef yoo xam ne si ne ku leen gis xam ni ñii ay muriti sëñ Tuubaa lañ nag ay taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine lañ ci doxin taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine bi ñu doon wax ne moom la meloon ba ci digganteem ak sëñ Moudou Moustapha bañ ni Cheikh Mouhamadul Mouhamadul Moustapha daan na laaj ndax Cheikh Mouhamadul Lamine am na ay dàll ndax musu ko fu ñuy jotaayoo wala mu di ko gis du ko gis ak ay dàll kon buñ ko yaakaaree ñun nan lañ war a mel ak lim bi mu jox Cheikh Ahmadou Bamba ci hadiya ci ay kaamil yu mu bind ci loxol boppam ci ay hadiya yoo xam ne si ne yu ñuy jëfandikoo la ak ci ay liggéey yoo xam ne si ne yeneen liggéey yu baatin la yoo xam ne si ne xel mënu ko daj yooyu yëpp ma ne tàbbi nañ ci biir ñun ci barke Cheikh Mouhamadul Amin googu te du jëf duñ jëf bu tax mu boole ñu jàpp kon lenn rek lañu man muy daje di ko sant waaye sant gi bu ngeen koy def day mel ni nii ñu daje nii tey te mooy jàng alxuraan ni nga ko waxee jàng xasida waxtaane mbaaxug yonent bi waxtaane mbaaxug sëñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadul Amin nay feeñ ci suñuy meloo bis bu nekk. ndax kenn ku mën a doon benn murit bu mën a doon foo nekk yaa fa nekkal sëñ Tuubaa te bu may xool jotaay bi li fa ëpp ay ndaw ñoo fi nekk te amul sikki ne kenn ku ci nekk am na lu sëñ Tuubaa teg ci sam ndodd loo ko war a doonal ëllëg te loolu fii rek lañ ko wàccaay yu fii rek la man a doone lii sëñ Bachiru di wax bari na ku bañ sëñ Tuubaa wala mu xeeb ko fekk na xam ko waaye dafa daje koo xam ne day tuddoo sëñ Tuubaa mu gis ci moom melokaan woo xam ne si ne tax na mu doxe ca yab sëñ Tuubaa loolu ku nekk war na ko moytu te kenn ku ci nekk ci njabootug sëñ Tuubaa gi li may wax li ko dale ci sëñ Modou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada sa waa kër na nga jëf ak na nga mel sëñ Tuubaa mel na melal na la noona ba noppi waaye naka la ca des nag sa jëfi waa kër la te war nañoo fexe ba jëfi kër Cheikh Mouhamadul Lamine seen jëf fu mu sotti koo ci kanamu sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Lamine siggi loolu nag ay taalibe yi ñoo ko mën a def waaye doo ay jëfam lim ñu mënal mooy yëkkati jàpp ci suñuy loxo lim ñu mënal mooy musal ñu lim ñu mënal mooy ubbi suñuy bët ak suñuy xel may ñu kattan ak wér la ca des nag mooy ñu siggil ko siggi goo xam ne dinañ jëf-jëf joo xam ne si ne boo liggéey ci kanamu Cheikh Amadou Bamba duñ ko rusloo loolu nag li ma wax mooy kenn ku ci nekk foofu nekk nga mën a waat ni sëñ Touba ak Cheikh Mouhamadou Lamine ngi teg bët ci yow ci sa ndax li may wax waxtu wu nekk kenn ku ci nekk boo faatoo ci sa bàmmeel amul kenn koo fa yaakaar mu fekk la fa ku dul sëñ Tuubaa ku yaakaar nag boo nekkee ci biir bàmmeel sëñ Tuubaa fekk la fa boo nekkee ci kër ruq bu mën a doon sëñ Tuubaa mën na la faa fekk te ku ci jéem a defaru daal di defaru ba faw ndax defaru Cheikh Mouhamadul Amin weesu na foofu dangay dem dëkk bi ñuy màggal ci koor gi ñi sant loo sànna ci yoon wi da ngay gis ak garab ñu ne la garab gi Cheikh Mouhamadou Lamine fi julli wala dara ak kàdd da ngay gis dañ koy ñag daal di tàmbali di lay suuf si léegi nag dem wuti nag luñ tabax ñu tabaxee kàddu googu wërale ko di ko lool kàddu goo xam ne bu fa Cheikh Mouhamadou Lamine taxawoon julli fa mu daal di wuuteeg tàmbali wuuteeg moroomi kàddam léegi dañ koy ñag wërale ko di ko sàmm wuti luñ ko tabaxee kon ak nitam war naa wuuteeg yeneen moroomi nitam kuy defar ay kàdd ay garab ay nit waaye nag képp kuñ defar sag yaafuus mën na laa yàqalaat laqad xalaqna al insana fii ahsani taqwimin summa radadnahu asfala safilina foofu moom ëpp naa àll kon sant gi jëf la jëf ji waaye nag ginnaaw bi it jëfaat la te jëfaat gi moo yar sa jëmm njëkk ba ku la gis nawloo fa nga bokk ku la gis xemmee ma dugg fa nga bokk ndax li may wax sëñ Touba dakk na àdduna Cheikh Mouhamadul Amin dakk na àdduna te kenn ku ci nekk ci njabootam gi li mu la jox ci sa wàll doy na la añ doy na la reer li Cheikh Mouhamadul Amin di wax ku la dig reeru gannaaw suba te joxu la añu tey dalay nax te ñun dañoo dig reeru gannaaw suba jox ñu añu tey ndax ci lan ci mbàkkeb sëñ Touba dama dem Burkina Faso ñuy toog am ci mbooloo ñu sakku ci man ñu am ay waxtaan yu ñu def ci sëñ Touba may waxtaan ak ñoom ba di leen leeral di leen àgg ci leen sëñ Touba dafa daj àdduna bi may waxee loolu am ku dugg as ndaw su dugg ànd ak benn waay ñu ne daa am lu ñu bëgg leeral ma daal di taxaw ñu lañ leen jox micro bi ñu leeral li ñu wax ndaw si ni moom Khadija la tuddoon ab jullit la woon waaye dafa bi léegi doon ab chrétien ndax dafa am ku ko takk koo xam ne du ab jullit waye seen ñaan yi ñuy def ci fajar gi ak waxtu guddi gi mom nga xamni buñ koy def dañuy gëm neena na bu gëmé day am jëm jëm gis jo xamni su xippé du ko gisat benn bis muy dox ba romb kër sëñ Touba gi ci Burkina Faso comme mouride yi ni ñuy def rek fuñ def kër sëñ Touba jël photo sëñ Touba def ko ci buntu kër gi naka mu romb ko rek daal di taxaw yuuxu ne ki la doon gis bu gëmé bi ñëwé di na lek dafa bëgg touba donat ab julit donat ab fa saasa ñu daal di koy nangu loola waxtaan ak mbokki soxna ya fa nekk ngir mu bokk ci day rek man jaara ba nga xam ne ki si sàkk amul ci ne sëñ Tuubaa dana dañ àdduna benn bis damay ndax yu baree bari ci àll bi la may dale ndax dangay li ñuy wax naan ku génn doo ko xam lu ëpp ci li muy wane boppam foofu la koy wane benn bis damaa nekk euh, Côte d'Ivoire may jóge fu ñuy wax Treichville di dem Adjamé taxi bi ma dugg fekk ma yor benn dollu xasida foto Sëñ Tuubaa nekk ci ma teg doll bi ci sama kaw mi waaye taximaan bi gis foto sëñ bi mu ngi koy xool rek li muy dawal lépp mi ngi xool photo yi mujj mu posé ma question ne ma lii la qui prière dans l'eau ma ne ko oui mu ne ma en tout cas il est forain nga xam ni ivoiriens yi sax xam nañ ni ku foor la te effectivement il était incroyablement fort bu fekk li sëñ na Messere di wax lu dëggu la fi ne bu sëñ Tuubaa nekkoon Mali kenn du dégg ak suñu waa réew mi ndax sëñ bii ci Mali sëñ bii ci Mali sëñ bii ci Mali bu fekkee ne nag ñun la ko yàlla taw fexale li muy wax ni wàccee na garab gi ba ci suñu loxo nga xam ne dañuy wat rek du aaja am lonk du aaja ab balaxu te ñun suñu loxo yooyu ñuy lonkee di jàppee mooy Cheikh Mouhamadou Lamine war nañoo xam li am lu mu doon ba buñ ko dee waajal bés ñu xam lañu ñu fay yóbbu lu mu doon dañu fay defaru jee dolli dolli koo fa waaye sangoo foofa ndax li may wax fa la lépp defaroo yoonu murit ginnaaw fa la soso keroog bi muy wax rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi mbakki kajoor la ko waxee himma boobu mu wax ni sëñ Touba yar ci ak njabootam Cheikh Mouhamadou Lamine bin ci am yitte la yitte jooju lañ fa war a yóbbaale bu ñuy dem itte mooy ubbi sa xol fexe taataan ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine taataan goo xam ne si ne boo dellusee ku la gis dana xam ne lu ne Cheikh Ahmadou Bamba sédd na ko waaye nag ku ne bëgg naa bokk ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine te loolu li may wax ñun taalibe rek ñoo ko ñoo ko war a ñoo ko mën a wane bu fekkee ni góor yàlla yu njëkk ya am nañ daraja ju toll ni fuñ kuñ fa dajeel kuñ fi tàntal di la waxtaane wala ñu toog fi bërëb di la waxtaane nga mën a am daraja ju toll ni nekk ci seen biir di leen tuur ay xéwal rawatina doomi sëñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Lamine kon bu ñu am sikki sakka ni barkeem mi ngi ci suñ biir di tuuru ci seen kaw nañ koy jariñoo nag buñ paree mooy kenn ku ci nekk ci ñun li may wax faxee jub fexee doon tànneef fexee doon royukaay ci képp ku la gis am naa yéene leeraloon ci lu bari waaye li sëñ bi wax sànq waxtu guddi wi ak yeneen kilifa yi war a jël kàddu ak itam bett guñ ma bett ci ni waxtaan wi ci moom lañ ko war a jëmale tax na lu baree bari duma ko mën a indi ndax يهنا ما خم لول وينك جناو أمي كلي فيني وراء جل كادو تيب جاي برا مي خم خم كسي دم كوي وخي جك جيني جك كادو دنيو أبي وخي وين كل لين خم وين لما تنيور لم لب جن كادو لارك ما لما وخ كن توا كرشا محمد المصطفى بوغو تا دون كنن شيخ محمد المصطفى دوينا لين موم لا نيو تيتو فوني دم موم لا نيو واني وا كرشا محمد الفاضل نونو waa kër Cheikh Ibrahima Fall noonu kon ñun itam nañu Cheikh Mouhamadul Amin doy di ginnaaw moom la ñu sëñ Tuubaa jox muy suñu cër ci bun ci moom ñu di ko wane melokaan woo xam ne si ne lii ma wax léegi ku ñu gis dana xemmee ma doon ñun te duñ bëgg a doon kenn te su boobaa li ma wax bu ñuy indi jëf yi di ko jóor ci kanamu sëñ Tuubaa kenn ku ci nekk di indi sa jëfi njaboot segam nit rek ci biir këram bu faatoo nekk ci biir bàmmeelam la ay njabootam di jëf dañ ko koy wan ci biir bàmmeelam ah rawatina ku toll ni doomi Sëñ Tuubaa kon lu ay taalibeem di jëf dana koy teg bët kon kenn ku ci nekk war ngaa sóoraale di bàyyi xel bu baax a baax la ngay jëf te Cheikh Mouhamadou Lamine di ca teg bët bu la wóoree ni bu jàkkaarloog yow doo jëf loola rek xamal ne loola lu mat a wattandi ko la loo war a bàyyi la te tàmbali la nga xam ne si ne bu Cheikh Mouhamadou Lamine ñëwoon doo ko bàyyi loola nag yàlla fa ñu ko kenn ndax bu mat amul benn gàllankoor am na xéewal gi gën a rëy ci àdduna te kenn ci ñun manqué loolu dafa am benn waay boo xam ni yàlla da koo tegum natt mu gumbo boole ko amoon feebar boo xam ni dañoo dagg loxo yi ak ñaari tànk yi am benn góor yàlla gu dox ba fekk ko mu toog mu ne ko na nga def mu ne ko ah, man de maa ngi sant yàlla lool di sant sant boo xam ni kenn xamu nu mu mu ne ko waaw yow man de say mbir jaaxal na ma ndax yow amuy bët say tànk dañ ko dagg ak say loxo looy sante mu ne ko yàlla xol bi ma defal damaa xam ne xañ na ma ay bët xañ ma ay tànk xañ ma ay loxo am na ñeneen ñu ko xañ te mayu leen xol ñu mën koo muñ man nag dama koo xañ ba pare may ma xol ma mën koo muñ xol boobu mu ma may ci laa koy sante ñun nag yàlla xëyuñu leen jox nañu doole jox ñu kattan war nañ cee mën a góorgóorlu liggéeyal ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Lamine muy suñ bunt kon di ngeen ci góorgóorlu te di ko bàyyi xel te luñ jëf rek ñaan yàlla nangul ñu ko ak sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu